yàlla xam na ne ñu ngi Gambie toog di seetaan waaye suñ xol yeeg suñ xalaat yépp ak suñ ay ñaan ñu ngi ci kaw sénégalais yi nga xam ne makee ngi daanu ci seen kaw lii ku ne méttiwut doo jullit ku ne méttiwut doo nit ndax maki Sall lii muy jël di ko teg ci kaw réewam where are the African leaders why are you guys quiet all of the time Why aren't you guys saying anything at all? Why are the African leaders not doing something about what's happening in Senegal? Sometimes uh, you wonder and ask yourself, why am I an African? Because being an African is the hardest of labor to be sentenced to. It's, it's just sad ne africa suñ njiit yi nga xam ne ñu ñoo leen di fal ñooy ëlbateku di ñu toroxal xoolal ay soldaar doomi ñoo xamante ni they meant to protect the law and its people ngeen di jël ay jigéen di leen dóor ci mbedda yi di leen kick ay handicap yàlla mi ñu tiim xam na ne man biñ cee Ousmane Sonko ba tey dama neutre si yëfi Sénégal dama ne duma si waxaat we've done everything xale yi Sénégal dëgg dëgg sën si Sénégal ay jàmbaar ngeen loo leen xam ak loo leen mun yéen a ngi koo wax yéen a ngi koo jëfee <coughs> Africa ngi mel ni amut ay leaders Africa ngi mel ni amut ay elders Sénégal dëkk bu rëy bii xam nga lii moo tax ma leen di wax ne bëgguma fi sëriñ man bokkuma si benn tarixa waaye Sénégal ak ni mu senegal ak ni amee diine ku faxa Europe ak Afrique ba ci tubaab yi dañoo daw Afrique dañoo daw senegal ñu ne pour uti ñaan pour dem jébbalu tey doomi sénégalais la Macky Sall di leen rey sëriñ yi yëpp a ngi noppi ana li leen yàlla dénka ana li ngeen digaale woon ak yàlla di ngeen sàmma yéen kan ngeen di sàmm su sones bi yëpp deeyee koo leen di sàmm maki Sall yow dama foog ne da nga caali one thing laa leen mun a wax about Macky Sall maki Sall you're a hypocrite Macky Sall naa fexe parce que bi Yaya Jammeh toogee ne nangootut élection yi dafa siisu it was Macky Sall ku go round Africa dajale eh, leader si Africa pour interest am si Gambia ne dina dem taamam jeex na win nañ ko dina dem maki announce ne moom du taxaw eh, taatam Sénégal yëpp kontaan ñëpp di ko wax ne def nga jikko gor tànk maki ma ki jël Ousmane Sonko tëj jël xale li yëpp tëj tey xoolal ñaata nit la maki arrest all in the name of bugg a falu Mariam fay Sall yaa ngi noppi mel ni doo jigéen amuloo doom ndax xale yi Macky teg ci kaso gi ñii ñuy dóor di rey yëpp ay doomi sénégalais lañ ay doomi jàmbur lañ ay waay Eh, sëriñ si Sénégal xale yi lu liggéey daw indi leen soo leen ootee ñoo ci ëpp say boo leen di loo leen di def ci àdduna xale li Sénégal mag ndaw góor ak jigéen jóg te xale yaa nekk ci mbedd mi ñu leen di tiya gaas xale yaa nekk ci mbedd mi ñu leen di dóor ay journaliste fan ngeen gisee ci àdduna bi ay journaliste ñuy xëcc seeni pérék di leen sànni ay tiya gaas Sénégal nu Sénégal nu leen mënoon ti nawee tey Macky yàq na naw boobu ñu leen nawoon maki sàll yaa tuuti Macky Sall yaa mees Macky Sall yaa soxor yaa bon yaay kéeféer maki sàll yow ngay digle cangaay te setuloo booy digle jub xoj da cee baax Macky Sall nga ne ah, Yaya Jammeh na jóg taamam jeex na Macky sa taam jeex na 12 years nga toog Sénégal sénégalais yi mënuñ la musuñ laa bundu xataal Ousmane doxut jox kenn dërëm li ngay def yaag sa famille dafa jóg xale yëpp parce que nag lim teg ci taabul bi dof yi sax mun nañ ko mun nañ koo xalaat ne dëgg-dëgg kii bu yoree réew Sénégal jëm kanam nga jël Sénégal rek tay la ko France tubaab bi français di def lu leen neex Macky nga jël sa doomi dëkka def leen ba jaratuñ jara xale bu génn ngeen teg ci kaso bi yoo xamewuloo jigéen ñi xameewuloo xale yi xameewuloo sëriñ si Macky sàll ko fil like ne am na baat Sénégal rek nga ne terroriste la wala dafa ñëw pour attaque la Macky na xam nii nga defoon eh, nii nga defoon Wade de Sénégalais yi jóg yëpp jóg ànd yow di xeex Ablaye Wade Macky Sall tey yow mi xale yi àndaloon di xeex Ablaye Wade te yaa ëlbatiku di xeex xale yi Macky yay yaay jaam billahi ñu ngi toog Gambia mënuñoo ñëw Sénégal bokk ci xeex bi wala sànni leen carte waaye bu doon Gambia tey Sénégambia bi ñuy woote dëgg la ku nekk mun naa dem sa dëkki moroom sànni kart kon billahi senegal di ngeen xam ne doo leen ñu gën a gore Sénégal li ngeen di fiil tey li leen naxari moom la ñoon moo ñu naxari ki ngeen bëgg ñun kooku lañ leen bëggale muy seen naa Ousmane mu sell mi waaye tey suñuy xol mu ngi nàcc ndax ndax Macky Sall tey mënuñoo nelaw bay yàndoor gis nga moom bi yëf yi ne tëkk ne jonn dawala na fameem ut fu leen dugal ay doomi sénégalais ñooy dee Yen ñi and ak Macky Sall suñ ngeen sol ay garam bu di fere xi doomi harami yi doo leen génn ngeen balu xalé yi seriously dama wax ne duma ci wax I keep ignoring this I keep ignoring this Wanted yalla mi ñu tim xam na ne munatuma ko ignore dama ne won duma ci wax gis nga bi nga tege Ousmane Sonko loxo la genn ci Macky Sall ba bëgguma ko wax sa affaire Macky Sall bëgguma toog sax fu ñu laa waxtaanee yow yaa tax ba sëriñ si amatuma lu ma leen wax Macky Sall yaay jaam Macky Sall yaay jaam Macky Sall Macky xale yi liñ la xeexal waa Sénégal liñ la xeexal Macky Sall yaa wëlbate ku jël doomi senegaal di leen dóor ci kaw doomi senegaal nga jël soldaari jox leen ay gànnaay ay tiye gaz ñu ko dóor ci sa doomi réew yow mi waroon Afrique yëpp di dajale eh, African eh, leaders yi naan ne da sos ECOMOG pour ñu ñëw génne fi Yaya Jammeh yow di same passing billahi jaani Yaya Jammeh bi màtta na la nit ki looy lebre rek na doon lu baax Macky yaay hypocrite yaay naafeex maki Sall yaa bon yaa yées yaa bon xol Gambie kenn du la fi wax dara waaye Macky man dinaa la wax dara parce que man 50 percent of suma family Sénégal lañ jógee I've got family I've got friends in Sénégal te xale yii ku amul family amoo xale Sénégal sax lii di dal xale yii ci mbedd mi ku leen yërëmut doo nit yalla mi ñu tim xamna ne I really don't know man mi nga xamne wax lay def so ba ngoon waye maki demb ba tay suma bobu dafa teju ngir yow maki li ngay def doomi jàmbur yi yal na kopp ci sa njabot gi maki bepp sénégalais joy lo maki yal na nga joy be ñulay nax te doomu na nopi maki yaak ñi nga andal ngeen tambalé li ci fenn ànd the aji saar doomi xaraam bobu ngien dem bet toon Sénégal into nothing yàlla bu leen am jàmmi aduna ak àllaaxira it's this is beyond sad because ku nekk war naa mun xalaat lii ba mu des Macky Sall parce que Macky Sall ni mel ndax makki lii la doon jéem di démontrer si time yi Ablaye Wade Ablaye bi mu bañee ne du wàcca Macky dafa génn ak sénégalais yi ñu dem ne eh, maaj pour eh, peaceful maaj tey sénégalais yi di maaj nga jël ay mborok ay doom yu tekkiwul dara ñuy tiire ay bal ci kaw doomi senegal Macky billahi Macky yaay ko ti su ma continuer di wax te Gambie dañ fi bañ ko wax maki dara xol nak du om bañ koy beus man I hate maki sala to the extent munum awma sentiment yi no ba numa mel man buguma maki. man musuma buga mati, musuma discourse maki. man so gisee ma tok di discourse maki bi Seydina Ousmane moussel mi genné la doga jox Macky importance even though he was the president of Senegal or he still is maki dafa jàpp Ousmane Sonko ne du taxaw troisième mandat ñuy gën a bëgg Ousmane Sonko maki indi Amadou Ba xale yi gën a bëgg Ousmane Sonko Macky ne du postpone na élection bi te Macky mu ne dixième bala la postpone élection bu waroon a nekk only twenty fifth of this month in two weeks senegal waroon naa dem into elections Macky mu ne post na ko ba dix ba eh, ba décembre which means décembre sax Macky du génn man bi Macky ne jël naa Amadou Ba rek ma xool Amadou Ba laa ne Macky mii du wàcca parce que Amadou Ba du candidat ci Macky ni ma gisee Amadou Ba mii mu mel ni ragal buñ saagandee laa xam complete ni Amadou Ba du du du du Amadou Ba ak penkaan kanamam gu ragal ak lum janga-janga. Amadou Ba xalé le Sénégal rek mën nañu yobou fitam so Amadou Ba du compétition ak ak Diomaye waaye Macky Sall touti nga nak African president African leaders why are you guys quiet Luta African leaders yi kenn waxul dara luta tax génne wuñ African leaders yi di génnee condemn Macky Sall Macky moo condamn woon Yaya Jammeh léegi lu tax ngeen noppi lu tax doo leen génne Macky what's the deal soo leen génnut condamn Macky yéen <laughs> non man man man man I don't I don't even know whether I should cry or dama war a soo saageen de ñu teg la benn place parce que I tell you one thing about Gambia nag dañ ne mooy naka la kële tudda Jumaay mooy Ousmane waaye biir Gambia Macky mooy Baro Baro mooy Macky wax fi lu la dafa dafa biir Gambia waaye in Macky's case I really couldn't care less I don't like the guy li moo def senegal du dëgg du yoon kan la fi Macky jàpp kan kan ñi Ousmane Sonko àndaloon di di xeex freedom doomi Sénégal ñenn ci ñoom ñu gëmut yàlla yi ñoo ñëw ànd ak Macky naan ko ba pare man li ma gën a métti mooy doomi Ablaye Wade jooju mel ni tool Karim Karim lu tax Karim war a wax ne waaw nañ ak élection si Ramalan Yifka. You're not going to read this Ramalan Yifka. So he kan mooy Karim Wade mu mel ni ñorut war taxaw ne nañ fooma élection si just because prenasam am true. seriously African leaders we all know that you guys are in for your bank accounts but please please please please the people, the youths of Senegal, they're all dying one by one in the hands of dictator Macky Sall. This fat guy is killing every youth or imprisoning them just because he doesn't want to give away the presidency on the 25th of this month. He knows he, he hasn't stand a chance with this bad guy. So what's his next move? Is to create a war between Senegalese. Macky Sall is using the army against the Senegalese people. Oh my God. Oh my God. African leaders, why aren't you saying anything? Macky Sall yaa tuuti yaa mees Macky Sall amuloo yërmande amuloo respect Macky Sall yaa ngi am sa doom yooyu ñu ngi mel ni ñami mbaam kenn xamul sa xale lañ ndax kilifa lañ sa doom bu si nekk mu ngi toll ni barigo comme container emalewuloo leen ak dara sëgam sa doom yooyu nga mun a jël teg leen fu tegul Macky Sall waxuma yi nga xam ñu ci tali bi di wo di di ñaxtu te lépp loo xam ne xale yaa def rek seen right la Macky yow doo rus sax Macky Macky sa kanam gu diis gu ñuul gi sa bi nga ko nga ni Christmas talking, Maki, you have no shame. You have no remorse. Maki ak alal ji nga am yeb 12 years yaag ñi nga andal say mbokk ak say mbokki jabar ak ñi daan mband kat yu maki nga xamne ne ñoo daan tiyé téré mbor yi maki li ngeen am yeb doyu leen ñaata millions ñaata billions way way maki yeureumal xalé yi Macky yërëmal Sénégalais yi ana murit yeeg tiijaan yeeg laayeen yi why are you guys not saying anything soo waxee sénégalais ñu jóg ne they believe in sëriñ sëriñ yooyu ngeen believe kay ñoo leen let down man de yàlla mi ñu tiim xam na ni naxar bi ngeen am man la gën a naxari comme yéen foog naa waaye nag we have trust in you guys ñun wóolu nañ sénégalais yi am nañ ci yéen yaakaar parce que yéen lu leen metti ngeen génn a faj ko nag ci seen melokaan ak nu nu munti demee di ngeen génn a ñaxtu li leen metti kon yàlla rek a yàlla rek am doole yàlla mi am doole yal na leen may doole boo leen xeexee seen raayit yal na yàlla yónni malaaka kay ñu ànd ak yéen ci xeex bi ba Macky génn abal leen ngeen jëlaat Sénégal African leaders yi lan la yéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi gis li Macky Sall ak looleen leen faral faral ak Macky Sall lii muy def war ngeen a mun a taxaw ne digga digga this is waaye yéen a gën a nekk mbaam makki Sall yéen ñi ànd ak moom di ko faral tem óor na ne lii muy def doomi dëkkaam du dëgga du yoon yéen ko gën a nekk ay salopaar because Macky lii muy def nii tegu ko fen ñu naan constitution baa ko ko may may na ko article 22 article na article sarab xooram ku believe in this nonsense article nga xam ne ñoom ñoo ko dee bind ñoo ko dee ceeñ xoolal dis this guy koo xam ne moo tax Sonko ak Diomaye ñu seen parrainage bi jaala Macky Sall jël na dis soldier mu ngi si prison bi tey Macky kan la arresté maki jël ay taxi driver ay ay téyekati téere mbor def leen ci parlement bi ñuy jalgati nu mu leen neexee di dawal moto yu neex yi dëkk ci kër yu seer yi seeni doom di tasaare ay millions while population yi Sénégal day suffering Gambie loo leen jooy ci seer Sénégal a ngay jooy ten times loolu tey ñun ñoo dend ak ñun ñooy seen dëkkandoor ñun ñooy dëkkandoori Sénégal tey ñu ngi noppi mel ni yëguñ li set li dal Sénégal gisuloo ñu bind ko xanaa bindkat yi sax ñoo nekk di binda waaye duñ binda di real deal wala ñu wane exactly what happening waaye tey ana suñ njiit yi ana kilifa diine yi kilifa aada yi yéen ngeen xam ne su dara naree ñaaw yéen a war a jóg bem rafet te yéen sax a ngi noppi seen gàmmo yi du feel mukk seen gàmmo yi kenn du ko kudeta seen gàmmo yi kenn du ko fomm kenn du postpone seen gàmmo seen màggal kenn du ko postpone seen siyaare yi kenn du ko postpone waaye tey liy jox Sénégal freedom yéen a ko xam toog ci noppi ka te boo leen waxoon rek boo leen waxoon xale yi am na ne xam nañ am na ñu ànd ak ñoom ñu leen far kon maki dellu gannaaw waaye yéen yéen a dooleel Macky ba tax muy noot waa dëkkam waaye yéen seeni màggal ak seeni gàmmook seeni siyaare amul benn boo xam ne daf cee fomm bu ko Macky waroon a fomm ngeen war koo def next month Macky ne leen fomm leen ko ba next month ngeen reyanteeg Macky Macky doful sax amul fitam kon lu tax ngeen bàyyi Macky di def lu ko neex di teg doomi sénégalais yi lu leen neex man su kees eh, su eh, problème bi demee nii daanaka suma wax du dee neex te dama bañ a dugg ci ay domaine yi mag mota xarama ma emal fi suma wax di wax senegal ne yalla mi ñu tim xam na ne ñu ngee bokk ak yeen naxar bi ñun ñi nga xam ne liggéeyuñ ci nguur suñu yoon ci nguur ñu ngee bokk ak yeen naxar bi ba ci kanam yalla ñun kenn fay fay yalla rek lañ ci seen ne billahi bu doon mën nañu wax ba tax ngeen am jamm ñun population Gambia ñun dinañ wax tey pour tey ni kon tey maki Sall du fanaan Sénégal waaye nag am na ay sëriñ yoo xam ne ñu ngi Sénégal bu ñu waxoon rek maki dellu gannaaw waaye yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla yokk courage ay jàmbaar ngeen billahi sénégalais youth si sénégalais si ay jàmbaar ngeen ay patriote ngeen war nañu Afrique yëpp war nañoo dajaloo jox leen bés boo xam ne dañoo celebrate di youth of Sénégal because ay jàmbaar ngeen looleen wax ne di ngeen ko def di ngeen ko def lu leen seen bët yi woon seen fiti may na leen ko kon yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla yokk courage ba lii ngeen songa ngeen daan ko yàlla mu ñu tiim xam ne I really don't know what to say xaw ma lu ma wax di leen massawu di leen massawu rek laa mun maa ngi leen di massawu senegaal foog naa ne Gambien yi ci ëpp ñu ngi bokk ak yéen naxaar bi ñi ci ëpp laa wax ñi nga xam ne yàlla rek la ñuy seet ci lii nit ki soo àndee moom danga koo wax dëgg Macky Sall rek gom yàllaa ma des su dee gëm na sax parce que Macky si boppam moo dafa fenloo lo Macky ne du taxawaat day dem mu óor ko ne dafa wara dem suñ defee élection ku win Macky dafa war dem Macky ne postpone na why who is Macky Sall ba mu postpone these elections till uh, up to uh, December and then the dignitaries télé bu ci TFM Youssou Ndour nga xam ne yow yow yow moom fu tooy rek nga tag waroon ngaa génn dina am sa naxar Bougane Gueye waroon ngaa génn di yow Bougane bi ñu la waxee ne bokkuloo ci parrainage bi li nga waroon a njëkk a def mooy songa eh, Pastef waaye nag góobu ne ay añ dina doy ndax bu añ ay ay añ doon doy kon yu daaw yi war naa doy yéen yéen ñëpp da ngeen xiif waaye sénégalais yii di xale yi nekk ci mbedd mi tey di taalaka daw ñu leen di sànni ay tear gas di sànni ay real bullets ñu dem jël ay nit ñu bokkut ak xawma fan lañ leen jëlee di dóor ay journaliste di sànni xale yi tear gas te any journaliste koo xam ne France la jóge any journaliste bu jógee France dañ laa xàllal yoon loo def ñu ne la merci beaucoup waaye journaliste sénégalais yi ñu ngi leen di rey nga xam rey di leen dóor di leen tiye gaz Macky yaa tuuti nag dije nga gaa ci jëmm waaye yaa tuuti xel Macky ndike yow nii nga mel Macky yaa fi taxawoon ne Yaya Jammeh du taxaw Gambie troisième mandat Macky lu tax impose ko in Sénégal Macky yaay naa fexe nag Macky yaa naa hypocrite yow yaay snake Yo, linga nga bañal Yaya Jammeh nga ñëw def exactly li Yaya Jammeh def and worse Yo, linga def moo gën a bon Yaya daf ne nanguwut élection si Why yo danga nanguwut sax élection am bañ buga bugg a I have to I have to end this life. I'm I'm getting upset. if I didn't end this life God di ngeen ma gëj a dégg Facebook so I just have to end this life di ñaanal Sénégal di leen ma masawu billahi ñu ngi leen di ma masawu naxar biñ am yàlla rek mooy suñ seede si naxar bi ñun soo leen jooyee ñu jooy yàlla mu ñu tiim xam na ne géej na ñoo am bànneexi politicien wala gën nañoo am ba e, bànneexi Sénégambie kii lañoo déglu biñ jàppee Ousmane Sonko ba tey man amatuma sentiment di seetaan sax ay ay ay ñëfi élection awma awma choix pour di déglu kenn muy wax Fernando dama day yàkkamti mu génn because daf day wax lu sensible xale yi yépp ay ñoom euh, Morgan ñii ñëpp suñ génnee dama dee yàkkamtu ñu wax because dina feel uh, a bit of Seydina Ousmane ci ñoom waaye lan ay politiciens yu nonsense yi ay niti safara yi su ma yoon nekkut ci ñoom kon xaleel senegal yal na leen yàlla jàppale def ngeen seen all you guys have given it your all you've done your best yéen a gën a jàmbaar jàmbaar yi parce que with the tear gas the shooting yep, dawu kon yal na leen yàlla jàppale yal na ngeen am ndam ci xeex bii ngeen di xeex free Sénégal Mang ngi di wax ne man de suma bopp laa mun a waxal I am one billion percent behind you Senegalese youths Suma ma fi. suma page maa mom. hashtag fat fat maki. free the Senegalese people Mom la cee aj Be ken na ma aaj waxuma la court waaye wall court sax dinañ fa taxaw Macky Sall free the Senegalese people Macky Sall bàyyil ñii ñu politique Macky Sall yo non Macky Sall kawat la nag ndekete Macky ak taatam ak biiram bu rëy yëpp Macky dafa ragal Ousmane Sonko ba ñemeñut I am upset and when I am upset I become really really rude and I don't want to be Uh, I don't want to start throwing B54 parce que am not even try uh, throwing B52, 54 or 60. Before that, let me pack my doubles and bed because mere naa Macky Sall mere naa kilifa diine yi kilifa aada yi nekk Sénégambia yéen a ngi fi su gàmma jotee ngeen génn doo leen ubbi seen gémmiñ ñi di wax ndànk ndànk ngeen di wax mel ni mënu leen a maa ngi gërëm ñu naan baa ngee gërëm bu leen ñu gërëm tey lañ leen soxla ngeen jóg dimbale xale yi ñu ngee dee suñ leen waxee wax leen mu mel ni seen gémmiñ ñi amut làmmiñ ngeen di wax ci suuf ñuy jottali seeni wax su alal ji ñëwee ngeen ne ko faax jël di ko jëriñoo yéenay sol yére yu riis yi yéenay dawal moto yu rafet yi yéenay dëkk ci kër yu rafet yi waaye te xale yaa leen koo jox bu dee amee xale yaay dee war ngeen a seetaat seen boppa de ndax li leen yàlla santa ak lii ngeen di def billahi guddi gu mel ni guddi tey àdduna yëpp jooy nañ maam Abdou billahi da baax Malick nga xam ne saa yu Sénégal yëngoo bu génnee wax senegal delluwaat back to normal play audio rek buñ ko playee sénégalais yi kaam kon maam billaay nama nañ la si Malick billaahi nama nañ la ndax nii Sénégal di demee boo fi nekkoon du ni demee waaye nag the youths of Sénégal courage rek courage rek lañ leen di ñaanal yokk leen courage incha allah billahi am leen courage am ngeen ko sax ndax li ngeen mun ponkali mbaam ñu bari munuñ ko kon dañ leen di ñaanal rek ngeen yokk ak courage ñod di nag bu daggul dina yegg si dangeen daan def di bàyyi waaye bii nduuti nduut la de amul dellu ginnaaw ca kaw ca kanam yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla sàmm e, sénégalais yi ba des ñii nga xam ne ñoo nekk ci benn saakul di rey xale yi di takk ci caga ji di lekk xaalis si Sénégal jël Sénégal jaay ko France waaye yéen population du Sénégal ngeen xam ne ceeñ rek ngeen bugga yal na leen yàlla sàmm ñoom dambo suma brother si yéen daal kulim juum Fernando yow moom yo I like you so much keep working guys courage rek courage rek incha allah dina baax di wax thank you so much I have to go because I am getting pissed te su ma getee pissed to the extent tey duma fanaan suma kër good night soo leen mu ne see live bi nag TikTok dina ma neex torop thank you